asalaamaaleykum ahousubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke Cheikh Ahmadou Bamba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi boole kàddu yu nuyoo yu ànd ak cant ak ñaan ak ngërëm jëm ci mboolem jullit yi ak taalibe yi di beral nuyoo bu ànd ak siyaar ak ñaan cheikh mohamadul muntaxa ibnu cheikh mohamadul basir xalif général des mourides di ñaan sunu borom yokk fanam yokk wéram ba mu àggale ay mébétam noo ngi nuyu njabootuk sëriñ tubaa gi ak seexi sëriñ tubaa yi ak taalibey sëriñ tubaa yi di nuyu ñu nu bokkal diine lislaam mboolem xalif généraux yi ak mboolem këri diine yi di nuyu bokki réew mi ak bitim réew ah, tombeeg fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2024 seen mbokkum taalibe mu ñuy wax Ahmadou Diongue baay jagal façon yéene gaaral ay xalaatam ci tolluwaayu réew mi ak diine ci tolluwaayu réew mi ak polotik ci tolluwaayu réew mi ak bokk gi ci tolluwaayu réew mi ak doxinu jamono nu bëggoon cee indi am njàngat ngir jàng ci waaye indi ci am njàngat ngir jàngale ci njàngat min ci indi ngir jàngat ci ak jàngale ci mooy bokk yi dañoo seetlu jamono ji coow li xumb lool ci këri diine yi ci seen diggante ci biir këri diine yi diggante kërug diine ak kërug diine coow li gaaw a bari lool ci diggante tariixa sàngam ak tariixa sàngam coow gaaw a bari lool ci diggante tariixa sàngam ak nguur gi coow gaaw a bari ci diggante taalibe yi ak politiciens yi ak politiciens yi làqoog taalibe ak taalibe yi làqoo politique ak sëriñ si làqoo diine di politique ak politiciens yi laqo diine bokk yi lii nag nu war ci jangat su lu mel am ba indi fitna nu wara delu wat ci serigne touba nun mi nga xam moy suñu sunu tay suñu yaakar nu wara sukkandiku ci am jangam ana serigne touba bu san am jafe-jafe bu ko gar ci digganteem ak bokkam wala jafe-jafe yi ko gar ci digënté nguur gi ana lu ca masa don ap taxawayam non set lu bokk yi ne serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ba mu feñe jamono fi ci Mbacke Bawal ba ni mu goy juram dem Poroxaan ba ni mu delu ce Mbacke kadior ba ni juram wacc ab musu ñoo degg fu serigne Touba xeexe wala mu xulo musu ñuko degg bokk yi bi serigne Touba wote yonu murit taalibe yépp wuy ci ko jafé jafé yi gënon na bari fekk way jure Mamor Anta Sali wàcc na ab liggéey sëriñ Touba jógee Mbacke Kajoor ñëw Mbacke Bawol ñëw Daaru Salaam ñëw sañc tuubaa dem Mbacke yi ba ni mu dem ci géej gi ba dellu siwaat ñëw Daaru Marnaan ba ni mu delloo Mauritanie ba ñëw Thiène ba dellu Njaareem ba ni sunu borom tànn dëkkaale ak moom ci 1927 ci Njaareem noon dey suñuy at bariwut suñu xam-xam néew na waaye mosuñoo dégg fu sëriñ tuuba xeexe ولا فمو خلو مبا فمو fu mu joxee ديكو خيخال ولا ko ديكو خلول بوك يي كون سوما ديغي ني نان su داي خيخ داي خلو murit نيت دي day xuloo ay nit di xataraayu naan dañuy xeexal sëñ Touba ak dañuy xulool sëriñ Touba yedduma leen ndax seenu bëgg sëriñ Touba war na faa toll na ma xam cislaay ak way yi nit ñi am ba mën xéxal serigne Touba ci ay ngànnaay te serigne Touba mosu def ci durub dundum nan lañu mëna def bay xulol Serigne Touba te Serigne Touba musu ko def ci diirub muy nek jamono ana nu ñuy xulol Serigne Touba diko xexal te ben seexub Serigne Touba musuma dégg fu mu takkeeb xare diko xexal wala fuñu ko atté ab xulo dañu tambalé ci Serigne Mbacke Ibra bay taxam ba nga xamné mom la fi mujjé a ci wayjur bàyyi Serigne Omar Mbacke ak Serigne abibou Mbacke mami Serigne tierno Mbacke gelongal musuma dégg fu mu takke ab xee xare ngir xéxal Serigne Touba wala fumu xulol Serigne Touba ta mom la fi déssawon ci way jur nanu dellu wat ci magi boppam Mamor Jaara mi mbokal wenn wayjur jur magi mag bàyyi Serigne Mor Soxna maami Serigne Cheikh Ismaïla musuma dégg fumu takke ab xare di xéxal Serigne Touba mba fuñu ko atté ci xulol Serigne Touba nañu dem ci mam cierno Ibrahima fatih di rakkam ji su rëkk ci moom mu ne mooy sama përëgum day joor bàyyi sëriñ Modou Awa Balla ak sëriñ Cheikh Awa Balla maami sëriñ Abdourahmane Mbacké mësuma dégg fu mu takke ab xare di xeexal sëriñ Touba mbaa fu ñu ko attee xulool sëriñ Touba nañu dem ci maam Cheikh Anta Mbacké borom Daaru Salaam ak gaawaan ak sëriñ Afia Anta maami sëriñ Cheikh Mbacké moom sëñ Modou Rokhaya ak sëriñ Sidi Mbacké moom sëñ Amidoun mësuma dégg fu ñu leen attee ci xulool sëriñ Touba mbaa ko nañu dem ci Seex Masamba Mbàkke way juru sëriñ Mahmadan Jobe Mbàkke maa mi sëriñ Seex mësuma dégg fu mu takkeb xare di xeexal sëriñ Tuuba mbaa fu ñu ko àttee ci xulal sëriñ Tuuba ak mboolem ñi sëriñ Tuuba bokkal ñu di ay rakkam wala ay magam mësuma ko ci dégg gannaaw Mbàkke neen dem bu soobee sëriñ bu soobee mi fi mujjoon di nijaayam te amoon cirub sunu borom mësuma dégg fu mu takkeb xare di xeexal sëriñ Tuuba mbaa fu ñu ko xuloole doom yam fi bàyyi woon di sëriñ Mbàkke Buso ak sëriñ Mulaay ba ci sëriñ Omar mi dib caatam musuma ci dégg ko xulool sëriñ takkub xare xulool sëriñ Touba mbaa ñu àtte la ngay xeexal sëriñ Touba nanu dem ca mag ñi waroon sëriñ Touba ca Mbàkke Kajoor nanu tàmbalee ci maam Cheikh Ibrahima Fall Babul dina bàyyi Cheikh Mamadou Moustapha Fall ak sëriñ Mortala Fall ak sëriñ Abdoulaye Fall Ndar maam yi sëriñ Mouhamadou Aminata Fall maam serigne Cheikh Fall Mbawar ak serigne Fallu Fallam serigne Modou amin tak serigne Cheikh Ndigal mosuma deg fu mu takke ab xare di xexal serigne Touba wala fu ñu ko attee muy xulul serigne Touba bokk yi nanu dem ci mam Cheikh isa jenn borom jenn ak lagan bàyyi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jenn maami serigne nar jenn maami serigne Sidi Naar mosuma deg fu mu takke ab xare di xexal serigne Touba ba fu ñu ko fu fu ñu koy attee muy xulul serigne Touba Sering Masamba job Sam wajuru sëriñ Muhammad job Masamba Pandu ñu ma fu mu takke ab xarit di xeexal sering Touba mba fu ñu ko atte muy xulool sëriñ Touba bokk yi Masamba job Sam bayyi sëñ Muhammad job Masamba Mami sering Abdourahim job. musuma deg mu takkob xare di xulool sering Touba mbaa mu ko bokk yi sëriñ Ibrahima Diop almaxchariyu secrétaire sëriñ Touba ba musuma dégg fu mu takkeb xare di xeexal sëriñ Touba mbaa fu ñu koy attee muy xulal sëriñ Touba sëriñ sëriñ ñaan Diop wajuru sëriñ Mouhamadou Diop ñaan musuma dégg fu ñu ko attee ab fu mu takkeb xare di xeexal sëriñ Touba wala fu ñu ko attee muy xulal sëriñ Touba bokk yi sëriñ Daaroo Asan way juru sëriñ Mbay Fallo maam yi sëriñ Abdou Khadir Ndiaye musuma dégg fu mu takkeb xare di xeexal sëriñ Touba wala fu fu ñu koy attee muy xulal sëriñ Touba sëriñ ma bànji xujja balla ak sëriñ ma bànji xorsata ak sëriñ ma fari Ndiaye ak mboolem mbokki njaayeen mësuma cee dégg seexub njaayeen ba ci sëriñ Babacar Ndiaye cargaan ak sëriñ ma fari Ndiaye musuma cee dégg ko takk ab xare di xeexal sëriñ Touba Sering Ali Diouf lambay bayi sering Mouhamadou Diouf lambay ak serigne tierno Diouf mami serigne Ahma musuma deg mu takop xare di xexal sering Touba wala ñu atté ko mi xulol serigne Touba ali yu Touré borom barakalla ak ali yu Mati Touré musuma cee deg ko takop xare di xexal sering Touba sering Ibra Dior Amar sering Ndongo Dior ak serigne paté Dior mbollem jabotuk mam Gumba musuma ci dégg ko takkob xare di xulal sañ Touba wala ngay xeexal sañ Touba sëriñ Adama Guèye ak Cheikh Mababou Guèye maami sëriñ Moustapha Guèye waalo musuma cee dégg ak mboolem askanu ngéyeen musuma cee dégg koy xulal sëñ tubaa mbaa mbaa ko takkob xare di xeexal sañ Touba wala ñu lay atte ngay xulal sëñ Touba sëriñ Mabéye Guèye maami sëriñ Moustapha Guèye ak sëriñ Ndiaye ma Mabéye ak sëriñ ma Mabéye musuma cee dégg كوي takkoob xare de xeexal سرين توبا mbaa خلال سرين توبا بقي سرين مختار مري Maxtaar ويجورو سيخ مدي juru مسوما ديگ نيو musuma dégg ñu takkoob xare ak mbooleem tille yi ak mbooleem bokke ñaxal musuma xare di xexal seigne Touba mbaa ngay xuloo ñu dila la atte mbaa ñu dila la atte ngay xulal seigne Touba keur cheikh ma paate Sylla borom diiwaan bokk yi Cheikh Mapaty Sylla borom diwaan diiwaan Cheikh Mapaty Sylla borom diwaan ak sëriñ ma Mañaaw Sylla ak sëriñ ci la Tafsir ak sëriñ ci la Faati Xëri mbooleem ci la yi mosuma cee dégg seex bu takkub xare di xeexal sëriñ Touba walla ngay ngay xuloo ñu di ñu di la àtte ngay xulool sëriñ Touba bokk yi Cheikh sàmba Diarra mbay ak seex Sa Dieye Mbaye jàmbaar yooyu mësuma cee dégg ko takkoob xare di xeexal ak sëñ Touba wala ñu lay atte ngay xulool sëriñ Touba bokk yi sëriñ Mor Mané Mbay ak sëriñ maxtar Mbay Kéré ak mbooleem seexi mbayeen yi mësuma cee dégg ko takkoob xare di xeexal sëriñ Touba wala ñu lay atte ngay xulool sëriñ Touba sëriñ Ndaam Abdourahman Lo bàyyi sëriñ Moustapha Abdourahman ak mboolem sa seex yi fekk baax ndaam mësuma ci dégg ku takkob xare di xeexal sëñ Touba wala ñu di la atte ngay xulal sëñ Touba sëriñ am sa Lo ak Cheikh Ibrahima Lo Ngaabu maami sëriñ Cheikh am sa ak sëñ Cheikh Ibrahima bàyyi sëñ daam Amsatu Lo maami sëriñ Khalil mosuma ci dégg ku takkob xare di xeexal sëñ Touba walla ñu lay atte ab wala ñu lay atte ngay xulal sëriñ Touba ak sëriñ Mor ak sëriñ Malick Bassine si ak mboolem seexi si yéen mosuma cee dégg ku takkoob xare di xeexal sëriñ Touba wala ñu lay àtte ngay xulool sëriñ Touba bokk yi sëriñ Balla Faali Dieng bàyyi sëriñ Abdou Dieng Balla Faali maami sëriñ Mourtala Dieng ak mboolem seexi njëngeen mosuma cee dégg ku takkoob xare di xeexal sëriñ Touba wala ñu lay àtte ngay xulool sëriñ Touba. sëriñ ma yaasin ummi jeng bàyyi sëriñ murtala jeng borom daaru guyaar mosuma cee dégg ko takkub xare di xeexal sëriñ tuubaa wala ñu di la atte ngay xulool sëriñ tuuba bokk yi lii lu tuuti la ci lu ma jële ci lu bari ngir seex yi bari gi ëpp na waaye dama ci doon junj lu tuuti rek lu bàyyi ko ci lu bari gannaaw seex yi sëriñ tuuba yi ñu dellu siwaat ci njabootam gi بسون برام تاني دكالك سيخ أحمد بامبا في 1927 سيخ محمد مصطفى الكريم ووتوكو مسوما ديغ سيخ محمد مصطفى الكريم باي سرين سيخ أحمد مباك غين فاتما سرين باك مدينة مسوما كو ديغ متقب خالي دي خيخل سن توبا ولا نيو أتكو ميخلو شيخ محمد الفادل باي سرين مصطفى فالي لوك ألا جبارا مامي سرين جيلي أك سن مصطفى مسوما كو ديغ ميخلو تقب خالي خيخل سن توبا ولا نيو ديكو أتكو ميخلو mbokk yi sëriñ Abdou Lahad Mbacké bàyyi sëriñ Sidé ak sëriñ Moustapha ak sëñ Seexuna mosuma koo dégg mu takkoom xare di xeexal sëñ Touba Mbagne di ko attamay xuloo sëriñ Abdou Khadir Mbacké bàyyi sëriñ Modou ak sëriñ Seex maami sëriñ Cheikh Abdou mosuma koo dégg mu takkoom xale di xeexal sëñ Touba Mbagne di ko attab xuloo sëriñ Saliou Mbacké bàyyi sëriñ Cheikh ak sëñ Moustapha maami sëriñ Cheikh Wallo mosuma koo dégg muy takkoom xale xeexal sëñ Touba Mbagne di ko atte muy xuloo alhaaji Baara Mbàkke ibnu Seex Mamadul Baadal ibnu Seex Ahmadou Bamba mosuma koo dégg mu tax ko xale di xeexal sëñ Tuubaa wala ñu di ko atte muy xuloo Seex Sidi Maxtaar ibnu Seex Mamadou Lamine ba juru Sëriñ Moustapha bàyyi soxna May mosuma koo dégg mu tax ko xale di xeexal sëñ Tuubaa mbaa ñu di ko atte muy xuloo Sëriñ Muntaxa Mbàkke ibnu Seex Mamadul Basiir xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér mosuma koo dégg mu takkoob xare di xeexal sëriñ Touba wala ñu di ko atte muy xuloo mbokk yi wax leen ma murit yi fan la ñu jëlee sëriñ Touba mu ñuy xeexal ci ay fetal fan la murit yi jëlee sëriñ Touba mu ñuy xeexal ci jaasi fan la murit yi jëlee sëriñ Touba mu ñuy xeexal ci yet weddiwu ma ña koy def mën naa am seen pas-pas la mën naa am seen ngëm-ngëm la waaye buñ ko bëggee dugal ci yoon wi bu ma sañoon ñu layal ko ngir dimbale taalibe yi nga xam ne mën naa am dañu leen a ëpp pas-pas te nag yoon wi duñ ci doxandéem ndax yéen a ngi jàkkaarloog man may waxtu yuru maw këyit te mën na maa wax lu ëpp lii ma waxoon lii lu tuuti la ci lu bàyyee ci lu bari kon duma ma cib doxandéem lu mu néew néew sunuy bàyyi ak sunuy maam bokk nañ ci ñi sañ ci dëkk bi bokk ci ñi bay fondation jumaa ji kon du nuy doxandéem ay jullit lañu ay taalibe Serigne Touba lañu waaye nag bëgg nañu bu ñuy liggéeyal Serigne Touba ñu xam fu ñu koy teg bu ñuy jëfal Serigne Touba xam fu ñu koy teg bokk yi kenn nit képp bu dee wax ak yoon wi yoon wépp lu lu yoon wi jóge ci di ko tontondoo te ñu mën koo bàyyee kenn bu doon kenn nit képp ñu ne ñu ne ñu ne bàyyee nañ koog Ahmadou jong Baye Jagal mu doy bu dee kenn nit képp taxaw di wax ñu bàyyee kook diw mu doy ñu bàyyi ko kenn mu doy waaye kenn képp taxaw di wax mbooloo jóg di wax ak moom ndax loolu xel fekke na ko ndax xam-xam fekke ko te mbool yoonu murit am nañu lépp am nañu xam-xam am nañu xel am nañu doole am nañu alal ku nu song ak xam-xam am na boroom xam yooyu bu ñu la joxee kenn mu doy te la mën nañ koo doon ci yonent bi bu ñu mësaan di xaree kenn par kenn kenn lañ daan dem ñu jëflanteeg ñoom ci xam-xam par kenn laaj plateau deba waxtaane ko bu dee lu ñuy financé murit gi am na ko bu dee ay xalaat yoon wi am na ko waaye bokk yi ñiy jóg di xeex ñiy attaqué yoon wi ànduma ak ñoom d'accorduma ci bu ma sañoon danañ ko bàyyi ci nam gën a gaawee ak nuñ ko mën a xeexee it bu ma sañoon dana fi jóg te bu ma sañoon état dina ci wax waaye bokk yi yoon wi war na noo waxtaanaat ci sunu biir ba suñu amee lu ñu war a wax bàyyi ko ña ko war a wax ñu wax ko bu fekkee lu ñuy lijjanti ci xam-xam la borom xam-xam lijjanti ko bu dee lu ñuy lijjanti ci baat borom baat lijjanti ko bu ñuy lijjanti ci alal borom alal lijjanti ko ndax am na nu xam-xam am na nu alal am na nu lépp te ba noppi bokk yi mënuñoo def daanaka dara dara daanaka mënuñu koo def loolu nag ñëpp war nañu cee bàyyi xel sëriñ Tuubaa jihaad dem woote woon mooy ragal yàlla ak jaamu yàlla ana suñ digganteek ragal yàlla bokk yi ana suñ digganteeg jàng alxuraan ak jàngale ko ana suñ digganteeg julli juróom ana suñu digganteeg wooru weeru koor ana suñu digganteeg asaka ak aj màkka ana suñu digganteeg bàyyi xeeti mooy yàlla yi te muy carte ak doxaan ak naan sàngara ak jël alali jaamur ak lekk riba ak wax lu dul dëgg ak rambaaje ak jaxase aw nit ana suñu digganteeg yooyu bokk yi lii lu tuut la ci lu bàyyi ko ci lu bari seen bokkum taalibe Ahmadou Diongo Baye Diagal fii ci groupe Baye Diagal communication Touba Darou Khoudous tey jii tombé woon ak samedi fukki fan ak ñeent ci weeru septembre 2024 fii ci Touba Darou noo ngi leen di balu àq di leen bal àq di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfati